mooy organisation boobu nga xam ne tudd nga ko muy Hamdan te mu judd woon ci jamonoy Covid bi te ab xalaat la woon boo xam ne bi Covid bi amee yàlla dogal ñu ne dootuñu delloo koor yi Sénégal ci lañ lu mel ne Italie ak France xam dafa nekk ci ay africain ak sénégalais bari ñoom nag ñu am gis-gisum ne lii est-ce que mënuñu cee waxtaan xool nan la ñuy def pour mën a am. jëkk li jëkk sax mooy fan la ñuy denc néew yi waaye mënuñu leen a suul fii léegi nag loolu xaw leen a jaxase ñu tànn ay borom yi xam-xam waxtaan ci ak ñoom ñu def ay waxtaan ay gëstu pour bañ a guddal gis ne daal lii war nañ koo jàllale ci kilifa yi ñu yëkk ci lañ créé benn comité ñoom ñu waxtaan bind benn document woo docteur yi ñu seen xam-xam màcc ci loolu lépp ñu laaj leen bañ na daal ñu defar benn document jébbal ko sëriñ Mamour Mbacke mu yët ko xalifa général de Mouride ñu ci lu yàgg nag ñu dégg président defaat benn déclaration wax ne bàyyi nañ leen koor yi muy ñëw ñu nag loolu moo tax wala taxul mais fekk créé woon nañ benn groupe boo xam ne ci lañ doon waxtaane loolu ñu ne kon groupe bi ñu doon waxtaane lii ndax dañ koy tas wala dañ koy continuer foofu la xalaat boobu juddoo ñu ne waaye ñu bàyyi ko continuer di ci waxtaan lépp loo xam ne soxal nañu rek ñu ciy waxtaane yàlla mën naa dogal sax ñu dem ba mën a créé ci waxtaan woo xam ne mën a boole ñun organisation nekk ci àdduna bi yëpp mm-hmm. biir waxtaan woowu nag ci la FONCAB de expérience bi nga xam ne FONCAB am na ko dana koy indi ci biir waxtaan yooyu ñu dem ci di wax ci suñu maam Moor mu soññiwaat ñu ñu gën cee xóotal ñu defaat ci dikkaat ci daaw waxaat ko mu gën a xóotal ren nag ci lañ dajee ak mbooleem réew yi nga xam ne juboo nañ ci yëpp ñu def fi ñetti fan mm-hmm. waxtaan ba ci conclusion bi daal juboo nañ ci ne daañ continuer di waxtaan ci lépp loo xam ne daañ ko mën a ànd ñun réew yi nga xam ne mbo murit yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yu fasanti ko ñu fexe ba liñ mën a ànd lépp ñu koy ànd waaye ñu xam ne loolu du lu bees maanaam dañ koy sof rek ci li fi nekkoon mooy organisation bi nekk Amérique ak organisation bi nekk Italie ak bi nekk Espagne ak bi nekk France murid yi organisé wu lañ ba noppi nekk ci xàllu Cheikh Mouhamadul Mourtada xàll woowu ñu nekk nag am expérience yoo xam ne mën nañ koy sottante ñu ne kenn ku nekk la nga nekk da nga cay ne waaye li nga xam ne bu dikkee yàlla mën naa dogal ne itaali képp bu ko bëggoon def mën na cee am jafe-jafe wala loo xam ne Amérique képp bu ko bëggoon def mën na cee am jafe-jafe nan la ñuy fexe ba ñun ñëpp buñ ko bokkee mën koo def hmm. mooy nan la ñuy fexe ba jekku ndigal loolu nag ñun ñëpp maase nañ dëppoo ci ne war nañ koo mën a ànd hmm. mais loolu nag moom mën a gun cee sore ci détail ndax day doog a judd rek yàlla dogal na sax ki ñuy wax naan mooy tudd ko tudd tudd jëwriñ man ma la wax ne maa ko jiite waaye nag dara sotteegu ci li ñuy tàmbali waxtaan rek la amagun benn réunion bu jëkk ajjuma samedi dimanche lañ fi def waxtaan bu ñu noppee daan ci waxtaan ak ki nga xam ne mooy sunu jëwriñ muy sëriñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada euh, diglu ko ci mu jox ñu ci ay tegtal jox ñu ci ay xalaatam ndax murit kese ñoo fa daje woon sëriñ bi moom ñëwu fa euh, murit rek ñoo dajee waxtaan sottante seen i xalaat gis na lii war naa mën a nekk bu ñu noppee nag daañu ko rendre compte moom mi nga xam ne mooy jëwriñ ci diaspora bi diglu ko ci bu ñu noppee doo ko tàmbali liggéey boobu nag waaye incha allah taala ñoo xalaat ci ay programme yoo xamante ni bii au lieu que ñu bàyyi xale yi rek ñu nekk Amérique kon bu jàng waaye daañu leen fexeel ñu fexe ba système Al azar bi nekk fii lëkkaloo ak système éducation bi nekk Amérique ak Canada doon benn système boo xamante ni bii léeg-léeg xale yi daan mën a jël ñetti weer yi nga xam ne dañ koy nekk Amérique te duñ jàng ñu mën leen a déplacer ñu ñëw fii nekk ci moo xam ci université yi moo xam lu mën doon dafa jàng la ba ba ñu ana am béréb boo xamante ni bii dana méngoo ak béréb yi nekk fële ca Amérique nga xam ne buñ fi nekkee duñ am lenn lu ñuy sentir ne dañ leen a jëlee ci béréb boo xamante ni bii jàng ma xawoon naa lëbale wàccee leen wala dara loolu yeneen xaat lay doon ndax xale yi mun xase ba ak fenn ci niveau ci jàng pour nga indi leen fii téye leen dana jafe waaye buñ ko waajalee rek loolu itam day laalaat ba tey xam nan ndax buñ ko waajalee rek suñu borom mën nañoo dimbali ba loolu dana mën a nekk. waaw ci immigration clandestine moom euh, démb dikkoon na ci suñu waxtaan sax secrétaire général joxe woon ci ay orientation muy sëñ tey mm-hmm. waaye li mu waxoon mën nañ koo wax mooy. ñoom comme dañ yàlla dogal na jaxasoo na gouvernement bu Amérique lépp lu jëm ci wàll googu ñoom la ñu bàyyi ñu gëstu ci gis nañ ne gouvernement Amérique sax ñu am nañ ci jafe-jafe ba noppi ñoom dépensé na leen dépensé googu mu leen dépensé nag tax na ubbi nañ ay ay porte yoo xam ne képp koo xamante ni bii am nga ci jafe-jafe mën ngaa am yoon yoo xam ne mën nga caa jaar xool ba xam da nga mën a jàppale immigration clandestine yi ndax fi ñu toll nii jéggi na dayoo ndax euh, ni ñu ko mën a waxee ci kër sëñ tubaay sax amatuñ foo xam ne mën lañ leen fa recevoir loolu amatul kër sëñ tubaay yëpp fees na ak i immigration clandestine euh, salte yi nga xam ne gouvernement bi créé na ko pour dugal leen ca fees na yenn ñi ngi ci mbedd yi bu defee yu mel noonu day doon ay jafe-jafe yoo xamante ni bii euh, dal na Amérique jaaxal na leen ñu itam bi ñu defee loolu ñoom sëñ Mbàkke ñoom ñu li wut ñu wut benn comité boo xam ne ñu ngi commencé di jokkoo gouvernement bi yan yoon lan mën a jaar ba bu ñu leen manee jàppale ñu jàppale leen. mais yoon woowu nag dañ koo tàmbali rek ubbi euh, application la yoo xam ne danga koy fiil ñu tontu la laaj la ay question nga tontu question yooyu heure bu yàlla dogalee ñu approuve ñu approuve la nag daañ la may pour nga mën leen a jàppale waaye pour le moment li ñu mënoon rek mooy def leen ci kër Sëñ Tuubaa te kër Sëñ Tuubaa yi dool fees na. wax dëgg yàlla amatuñ ci benn kii boo xam ne mën nañu. ñoo ngi leen di nuyu maa ngi tàmbali di présenté bopp Mbacke Thioune laa tudd vice président fondation bi ba pare jiital euh, jiite comité social bu fondation bi tey nag maa ngi am mbégte lool di sant gannaaw bi nu nuyoo euh, sëñ Muntaxa Mbàkke xalifatu euh, murit yi di ci teg sëñ Mamor suñu jëwriñ euh, waaye di nuyu kilifa diine yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci senegal ñoo ngi fii tey fekkewaat ko di sant yàlla bu baax daaw toogoon fii ci benn ci conférence ci point de presse bu mel nii tey ñu waxtaanee ci point boo xam ni man ci part boobu laay waxee tey jii muy Euh, comité social fondation bi euh, ni ni ko sunu mbokk mi mbokkum taalibe mi defee léegi di sëñ Moustapha Diop ngeen xam ni fondation bi ay comité rek ñoo ko seq ñuy am ay travaux ay travaux yoo xam ni travaux annuel lay doon chaque année comité yëpp ku ci ne di nga am période boo xam ni fondation bi dafay ànd ak yow liggéey ci benn projet euh, comité social noonu lay doxee. ñoo am nag benn programme boo xam ni tey jii moom la ñuy indiwaat jaarale woon nañ ko fi daaw di ko indilaat programme boobu ñu koy tuddee hadiyatu rahma euh, programme boobu nag c'est un programme bu euh, boo xam ne dafa indi réponse bu am solo ci demande boo xam ne ñi ne ci diaspora bi dañ ko posé woon muy problème mu rapatriage euh, rapatriement koor bu fi nit jógee ñëpp xam na ni loolu ni mu diisee ci ñi nga xam ne ñi ngi ñun ñi ñoo féete ci jasporaa bi yàlla defoon ñu ci nekk euh, laataa ñu concevoir programme bi ba développé ko dañ daa jël téléphone di woo daay yi di def ay collecte de fonds bu nit génnee àdduna ñu toog nag waxtaan xam ne loolu procédure bu xawoon di gudd la procédure yenn saay boo xam ne euh, dana tax ñi fi bàyyi ko toog fi lu yàgg a yàgg waaye procédure boo xam ne seet nañ ko ne amul sutura sax boo ko dee xool ndaxte di yor ay mbuus di def ay collecte de fonds fii ak fee jàpp na ni loolu ñun bu ñu organiser woo rek dana mën a saafara loolu. ci noonu leen indee nag programme boobu ñuy tuddee Hadiyatu Rahma ni ma ko waxee woon léegi ñuy euh, sasoo ci suñu bopp di def ay col ay ay ay collecte de fonds euh, ci mbokki taalibe yi tàmbalee ko ci taalibe yi waaye ubbi ko muy programme boo xam ne bu inclusif la tijjil ko ñëpp di laaj di dollars barkeelu boo xam ne yaa ngi koy def benn yoon annuellement 70 dollars yooyu boo ko dee xool ci ci 40 000 francs CFA lay toll. ñoo ngi ko tàmbali woon en 2017 ban koy njëkk a tàmbali nit ñi ubbeeku nañ ci bu baax ndaxte booba lu bees euh, ñu am ci 985. adhérents ci période boobu en 2007 en 2017 loolu war ware woon na ni ñun liñ doon wootee nit ñi ñoo ngi ci doon wuyu ah, c'était en 2017 fii ñu toll programme bii ñu ngi ko tëj bii ñu chaque année lañu koy amal bii ñu mujjee def ñu ngi ko tëj au mois d'août ci weer wi ñu passé le 15 août pour être très précis am nañu 3071 membres yooyu kenn ku ci ne joxe 70 dollars ñu xool luy rapatrier corps jële ko Amérique mbaa Canada indi ko fii ci Sénégal en moyenne bu dee New York la xewee c'est pratiquement ëpp na 5 millions 3 euh, millions de francs CFA dana ëpp 5000 dollars bu dee nag sax sori na New York prix bi mën na jóg ba yegg ci ay 4 millions mbaa 5 millions de francs CFA yenn yenn saa boobu permettre na. taalibe yi nekk Amérique léegi rek jëwriñ maa ngi koy dégg mu naan ñoo ngi joué rôle yoo xam ne sax état moo ko doon wala joué mais bii exemple la bu particulier ci loolu ñoo ngi taxaw taxawaay boo xam ne taxawaayu état la woon waaye ñoo ko organiser suñu bopp concevoir ko suñu bopp di ko defal suñu bopp euh, loolu euh, yàlla dimbali nañu ba nu collecté ay fonds teg ko ci ab barab ba nga xam ni mbir mi bu xewee ci kenn ci mbokki taalibe yi yi ne ci Amérique mbaa ci Canada fonds yi dana fa nekk nga xam ni loolu dana nu épargner di jóg di def ay collection di def ay ay quête ci côté bu ne waaye dana nu permettre euh, rapatriement bi nga xam ne nii moom la ñu war a taxaw ci jullit boobu mbaa ci mbokk moom mu dal mu gaaw dana gaaw dana nekk ci sutura muy programme boo xam ne am na résonance bu rëy rëy ci Amérique du Nord ci Canada ak États-Unis ci état yi ne ci États-Unis yépp programme bi fondation bi moo ko concevoir mais ubbeeku na li ma wax ni c'est un programme inclusif ubbeeku na ba nga xam ne nii waxuma la sax waxi tarixa yamatul ci tarixa ñëpp ngi ci mais dafa dem ba nga xam ni nekkatul sax un programme purement sénégalais fa nekk programme boo xam ne diaspora bi yëpp ñoo ngi ciy gis seen bopp béninois yaa ngi ci nigérien yaa ngi ci mauritanien yaa ngi ci gambien yaa ngi ci malien yaa ngi ci ñoo ko xaw organiser nag ba di ko yemale sax foo xam ne nii fi leen bëgg mu yam pour man koo gën a maîtriser kon fondation Cheikh am Bamba indi na programme boobu mu nekk programme boo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu nit ñi nga xam daanañ wàcc ci liggéey foofu ñuy am jafe-jafe di leen rattrapé euh, rapatrier fondation bi indi na ci réponse boo xam ne réponse bu bu rëy la ñëpp di ko rafetlu programme bii ñoo ngi leen ko doon indil waaye ñoo ngi am sax objectif euh, gën koo étendre ba nga xam ne nii du limité wu rek sax ci ay rapatriement loolu euh, liggéey la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ngi ciy xalaat ndaxte euh, maa ngi dégg léegi sëñ Moustapha di ko wax ne ci suñu biir ñoo ngi koy def ndemte waaye ñoo ngi bëgg mu nekk un programme de rapatriement et d'entraide sociale nga xam ni nit ñu ne ku ci am jafe-jafe dina mën a ñëw nunu la taxawoo Eh, ci anam yoo xam ne yu sutur la anam yoo xam ni yu eh, gaaw la kon mbokki waa presse eh, waaw jëwri ñoo ngi koy fàttali bu ñoo ngi am ay partnership avec funéral yoo xam home yoo xam ne ay jullit lañu ndaxte ñu fàttaliku ni lii programme fondation bi la bu xewee commencé par ñun ci comité social ñun lañuy woo ñu woo funeral home bi ba fii may tax ak yéen am na tey jii koo xam ne nii ma nga bàyyi ma nga gaañu Richmond ndem te fii lañ ne équipe bu Hadjatu Rahman ña nga taxaw ànd ak funeral home bi nga xam ni jullit lañu ba ña ngay jéem a jël corps boobu rapatrier ko au Sénégal dans les plus brefs délais kon boog lii mooy Hadjatu Rahma muy benn programme ci programme yi nga xam ne fondation Cheikh Ahmadou Bamba concevoir na ko et développé na ko